Cheikh Ibra yow ku réer yaa ko gindee Jazboul Mouride au service de Mame Cheikh Ibrahima Fall la la sa di seere faal yi da cay bokk di say bokk di jawri ni waar wi nu nekk ñooñu ñëpp yaay seen mag kon wax ji ñuy wax loo jawrin ji sëriñ Falilu moom waxul day jottali waxi kilifaam kon sëriñ Asan Faal wax ci say loxo la ñu koy teg nga bokk koog nun murit yëpp Serigne Fallilou Fall mu ngi nuyu murit yi ci turu kilifaam yëpp def muy jawrinam di Serigne Cheikh Fall moom Seydi Modou Moustapha Fall moom itam mu door koo jox kilifaam mënoon nañu koo xëy rek joxe ko bu subaa waaye kenn ci ñu baax ñi daa woo ñaar ñu tolloo xalal ka gën a rafet le mu ëpp le taar ba la ko ëpp moo ko moo tax kon liggéey bi lu mu bari bari bari dooleeku na ndax taar bi xolam sedd na ci guy ci turu kilifaam yëpp lii lépp daal murid yi jom rek la lu tol ni kër Seeraay ma faal hadi yi jëm kër Sëñ lu bari bari rek bariwul ndax joma tax ngeen defe ko nii ngeen defe ko nii ku ci ne ku ci ne waajur wala jur waajur jur bu génnee àdduna na nga góorgóorlu yaa say bokk ba wut aw nag joxe ko ci ah, ñii denc soxna ñii denc soxna ku sa soxna am gone ku sa soxna am gone nga ngénte ko donte dangay lebi itam. mu ne lu toll ni tabaski bi Seera Faal mii. at mu nga jéeg ci. at mu nga jéeg ci. jort ne am nga jom. jort ne am nga jom. da xamee wul li nu war a jombo. waaye loolu rek la ab murit war a jombo. rawatina Baay Faal bi. jomb na jomb naa. liggéey bi jëm kër Seera Faal. te jëm kër Serigne Touba. jomb naa cee bañ a bokk loolu de mooy jom kon nag nan doolee soññu te ñi nga xam ñi nga xam ne mbooloo moo ne seen gannaaw ñu doolee soññu mbooloo mi ndax nun de wàcc nañ nun murit yi jébal naa la sama bopp àdduna ak àllaaxira digal ma def loo ma tere ma bàyyi ko kooku moom wàcc na ka koy digal moo ci des te ku ne mën naa wax ñi ànd ak moom ni leen gën leen a fa buwaat ci liggéey tabaski yi la ngeen jéem ba mën a amum tudd te sunu borom a koy def su ngeen ko jéemee ci liggéey bi jëm kër Serigne Touba sunu borom farli la lool kat mat nay bàyyi xel waaye bàyyi mbooloo mi sa ginnaaw rek jort ni boo joxee lenn yóbbaale nga leen te la lu dul jeex loolu gàcceeg murit yee koy bàyyi xel rek nanuy tàggat tey soññee ñi sun gannaaw nun murit itam sëriñ moom liñ ko jox rek la mën a joxe Sering bi dara nag te bëgg sëriñ bi joxe ab lim li ci ëpp nag ci maag kii ma janool ci ma janool ci la bokk ndax ñi seera di la bi koo xam ku la nuyu mu ngay seet lu mu teg ci sa loxo te jëmmi seera rek tax xel jëfam ji lu mu rëy rek doyul te ku ko jéem nag kala koy man loo mooy def lépp faaw mu far la ci waaye boo mel ni am sëriñ nangam rek waaye boo mel ni am sëriñ nangam rek nga xam ne xool liggéey bi mooy loola ca war ëpp na ko sax waaye yaa ca war loo xool bi yow wala ngay géel mel lampaay rek. wala ngay géel bu mel ni maam lamp mbaay. jot ni fii ak ngéwél dana fi xañe dara. jot ni fii ak dana fi xañe dara. wala mu di fi dara. wala mu fi maye dara. Eh, ma ni boobu da ngay fexe bokk ci géwél ya nga xam ni. ñooy dawal di andi. da ngay ñootiku rek. man kenn du ma jaay géer laa man mukk. nee dañ cee ba a jàjj sunu bopp su ne léegi ku sant Mbàkke lu jox ma ko mu tudd Fallu mu wax ma kàddu goo xam ni ma nga réussir man lool dama ni ko ñi mel ni yow ñoo tax du ma sonn du ma tokki ndax kàddu gun ko wax kàddu googu nga wax ku tawat taar ja naa deñ ndax xol bu sedd rek kon nag murid yi yéen a moom jëf ji de rek la ñeel te ki ni lam dige dana ko def te bu sunu ba tege woon ca la kon li ni ñaan ci àdduna lépp du lu ko ñaanati ndax kon dara àdduna du nu safati te lam wax kat dëgg la dana ko def kon nan delloo feddali laxasaa yi te xam ne gor soo xam ni ab coonoom benn rek lay doon mu ni soo see néew néew ngor war naa mën a muñ coono ba te coono bi benn rek la kon nan doolee feddaliku te muñ ko rek te bañ a tënk lu ne lu am njëriñ nan koy làmbatul sëriñ bi noonu murit yi lu koy noppal dinu noppal loolu mooy mooy sun njëriñu tey mooy sun njëriñu ëllëg lépp ci murid yi nag noo ngi ci loolu yi waaye lii ma wax ñu bari xam nañ ko noppaluwu leen guddi ak bëccëg fu ne xel yaa ngi fay tasaaroo jëm ndax a defar sëñ bi rek kon sëñ Ablaye Fall Ndar yaag sëriñ Daam Sooda danoo jiite seen mag ji waaye yéen a leen nekkaloon ca waar wa kon bu ne jawri waar wa kuy sant waa waar wa sa jaatu daw turam kon jërë ngeen jëfati sëriñ bi ne yàlla na ngeen yàgg a taxawu seen liggéeyu maam bi te ànd ko yi ngeen bokkal pas-pas bi yëpp rek yàlla nañ fekk déwén liggéey bi mu déwénee na fa waxo lool am na fa sunu boroom te ku ko ñaan mu jox ko rawatina na ku ko ñaan jëme ko ci moom yéen jëmewu leen fenn seenu ñaan furul fi sunu boroom mi ngeen koy ñaan kon yàlla na ko nangul sëriñ bi te nangul nu ko kon bu neexee sëriñ bi ñaanal nu waaye suba nag nanu ko daan defee suba la ñuy yóbbu liggéey bi incha rabbi nu fanaanoo loolu murid yi su noppee ci kàddu lu ñu ci bi tegal ndigal lu mujj a ñëw moo ëpp doole lu jëfe loola waaye fi nag lii mooy wax jëfal ngeen sëriñ bi la mu bëggoon sëriñ baa ngi ñaan sunu boroom mu defal leen la ngeen bëgg xanaa xéewal yi nga xam ne defar nanu ko ba noppi kon nu xéewloo ko mottali ñaan gi sëñ daam muy sëñ bi waaw Fall dégg nañ ko <laughs> Fall amiin Fall amiin Fall loolu yoon yi service de Mame Cheikh Ibrahima Fall